nooy sunuy bokk mbokk yi des na fan yu néew ñu àgg ci tànnaat ay député yóbbu leen assemblée nationale mbooloo mii am na ay député yu ànd ak yéen ci liggéey bi ànd ak nun doolee ngi fi buñ ko bàyyi mu nelaw jóg leen ngeen fexe ba am carte électeur am carte d'identité jot ci liste yi génn nu sol ca bam fees dell dell dell suñuy député bu yaay yekkee añ nga ñëw tiim añ bi laar bi laaran doo añ bu sa yaay yekkee añ nga ñii tiim añ bi naan laar bi laaran doo añ in tansurullah yansurkum in tansurullah yansurkum sunu borom nee na dimbale leen ma ci penc mi ma dimbale ci penc mi penc mi jàpp dimbali leen ma ci penc mi ma dimbali leen ci penc mi penc mi jàpp am nañu ñu saa yu nekk ay député ànd ak ñun ci liggéey bi lu mu leen jaral jaral nel ko na liste yi génn na carte yi génn nun kat fi ne ku fi falu noo la fal ku folli ku noo folli nan jàng fal ak folli nan jàng fal ak folli fal leen foli leen foli leen fal leen Oustaz Aliou eh dañoo bëgg nga dugg ci liste bi de dañoo bëgg nga dugg ci liste bi ak kenn yow dugg leen ci liste bi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum mbokk yi li woon de mi ngi fi ñu ko def na woon fi nekkul yàlla na yéen wax nag baax na waaye jëf moom bu ñëwee mën naa yëkkati wax teg fële wala boog mu ànd ci ginnaaw wax ñu ñu bokk jëf yàlla nu yàlla boole nangul man nag léeg-léeg su taxawee fii balaa may jeexal sama xel day ñëw ci aaya yi inna lazina kafaru yunfiquuna amwaalum fi sabil li yasuddu an sabilillah fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim hasra summa yuxlabuun li muy tekki mooy nun ñi kenn du ñëw di ñu jox ñuy def lii nun nooy làmb suñu poos def ko làmb leen seen poos def ci liggéey bi waaye bu leen ca yem wuti leen carte électeur carte wote bu jotee balaa yàgg élection législative yi ñëw ah